wajalilaayi dëkk la boo xam ne dafa yàgg am jafe-jafe ci wàllum assenissement rawatina jamono bi nga xam ne ñu ngi waajal màggal Touba te nekk ci nawet bi mbedd yu bari taa loole tax Touba ca kanam jóg lancé benn opération jaayante woo si mbooleem jullit yeeg taalibe yi ñu wuy si leen wuy gu am solo jëf ci jëf joo xam ne kawe na seen njortu ñu dajale ay koppar ak i jumtukaay ngir fas ne lancé li nga xam ne moo jëm ci assainissement bu Touba ngir màggal gi jafe-jafe bañ a am ci fànn googu. liggéey bi biñ ko wootee dañoo seet ne mbedd nawet bi màggal gi mi ci biir nawet màggal gi mooy ndaje mi ëpp solo ci Afrique de wala ci àdduna bi sax bu la neexee makka te màggal gi bu ñëwee xat-xat lay doon ak jafe-jafe daaw ñu tàmbali ko def ci liggéey yu ama am solo biñ ko defee ren ji nag ñu ne nañ ci teel a tàmbalee jublu ànd ak borom xam-xam yi ñu wàcc dem ci dëkk bi xool saytu jàngat daal di xayma ne ci xayma bu ñu amee 350 millions xayma jëm koon natte ci tolluwaay bi ñu amoon waaye nag mu mel ne dañ cee sóoraale woon ne dañu am jaayante ñu ne kon nañ ca tàmbalee bi ñu wootee jaayante bi ci ndigalu sëriñ gis nañ ne liñ ci doon faw xanaa romb na loolu nag day joxe tegtal ci ne liggéey buñ tàmbali la waaye bu yamati ci nañ ko xalaatee woon ndax bu yokkoo dañuy yokk. liggéey bi nag commune bu tuuba jàpp na ci bu baax a baax nda yëkkati na lu toll ci fanweeri million jébbal ko Touba ci kanam ak juróomi junni litre essence ak personnel boo xam ne teg na ko ci seen loxo ngir mu jàppale leen ci liggéey bi. ma ñu firndeel ko ñu daje waxtaan ci ñu tënk li ñuy tënk lañ ciy jubloo ba trouver solution bii nga xam ne ñoom ci seen xereñ ci seen ak njàmbaar ci seen ak ci yëg-yëgu sëñ nga xam ne li ni ñu ko dee Tuubaa ci kanam taalibe seen Tuubaa yépp a ngi ci ñu laase ko murid yi répondre ci nii taalibe sëñ Tuubaa yi répondre ci nii li ñu ci teñ ànd koog ñun la ma leen waxoon ci tàmbali ba rek maa ngi yéen Tuubaa ca kanam moom liggéeyal sëñ Tuubaa la te kenn du ci man fu ñu toll ku fasiwuma yéene ku yàlla bind man ma ci liggéeyam sëñ Tuubaa loolu moom maa ngi ñaan suñu borom nekk ca jàmbaar yi ci kanam. objectifu Touba ca kanam mooy mu taxaw ci mbedd yi nga xam ne daan ci dëkk bi tam yaatu lool ñu sëkk ko defar ko jëlee ndox yi daan ci yenn bërëb yi. tali yi nga xam ne dafa yàqu woon ñu defar fa ay radier. ñun dañuy defar loo xam ni dañuy wéy di fi nekk kenn dootu ko fi jëlee bu ko yàlla dogalee loolu lañ bëgg def. Mm-hmm. loolu tax na. Euh, ànd naag liggéey bu yaatu ndax nawet baa ngi ñëw day taw fi ñuy war a defar mooy fi nga xam ne ndox mi daf fiy taa maire ak collaboration ak euh, ñi nga xam ne ñoom la ko séqal muy autorités yi ak waa état bi ci euh, direction bi nga xam ne ñooy wàllu inondation yi ñu jël programme ak sapeur pompier ci fépp foo xam ne nii ndox mi daf faa taa su boobaa ñoom danañ ñëw daal di koy vider maire dana fa wàcce courant sapeur pompier indi ay pompe ñu jëlee fa ndox ma ngir ñun ñu mën a liggéey di wax ne études yi def nañ ko ba pare dëkk bi rëy na liñ ci war a def bari na ci assainissement dañoo jukki li nga xam ne moo ci gën a jàmp ginnaaw bu ñu wëree ba xool ne lii moo gën a urgence rawatina libéré yoon yi te loolu tàmbulee ci fii ci station Shell bi ak fële ci buntu maire yi ba te maire wax ne jërut ñu koy laal ndax pare nañ pour defar ko ak fu mel ni euh, tokkooru sëñ Cheikh ba ak yu ni mel ba mu mat vingt sites yi ñu jàpp ne moo gën a ñor ñu fas ko yenee tàmbule am na ay tali yoo xam ne yoon daf koy nangu yamul ci ay tali waaye am na ay mbedd yu mag yoo xam ne amul tali waaye na muy méttee ëpp na. loolu it saafara yi nga xamante bi ne ni moom lañ ci euh, euh, tënk fii ñu toll nii mooy li ñuy wax ay solution d'urgence durable yoo xamante bi ne ni day doon solution yoo xamante bi ne ni fii ak màggal gi liñ fiy def bu leneen dikkatee ëllëg day doon loo xam ne daf ci toftalu ci loolu ci lañu xool fi nga xam ne day tàndox ñu xool ci li ko wër loolu ñuy wax exutoire fa nga xamante bi ne fa la assainissement ba yam ñu xool ko am na ci barab yoo xamante bi ne ni fi mu toll ak ñi ŋànk assainissement bi waxtaan nañ ceeg ñoom ba ñu d'accord ci ñu jëlee ndox mi foofu yóbbu ko foofu daal di ko ci raccorder mu dem ci réseau bi ndax loolu it li tax ñu waxtaan ceeg ñoom mooy mën ngaa jële foofu ndox dugal ko ci réseau bi fekk booba ñoom jumtuwaay yee ñu nga xam ne moom la ñu waajal attanul li nga xamante ne nii moom lañ cay def kon bu boobee ak loraange lay lay lay jur feneen waaye du jur saafara loolu yàlla sunu borom def na ci tawféex ba nga ñu ci waxtaanee ak ñoom gis nañ ni loola mën na doon loo xamante bi ne ni luy nekk la yeneen beneen bi ci des mooy dafa am mbedd trent yoo xamante bi ne it ni ko suñ bu waxee day am ndox su amee ndox dañuy wax ni dañuy def lenn def fa li ñuy wax préparation plateforme yi buñ ko defee ba noppi def fa ay couche de fondation def fa ay couche euh, de de ak ak ay couche de forme loolu suñ ko defee suñ defee loolu yëpp ba waajal ko ba noppi dana tax. yoon yooyu ñu mën koo jëfandikoo. Touba dëkk bi ni muy màggee dafa jéggi dayoo loole tax na ba assainissement bi àggul ci gox yu bëree bëri lii nag tax na ba Touba ca kanam xalaat ci ngir fas yéene taxawal kuréel goo xam ne dañuy xalaat saa su ci li nga xam ne moom moo jëm ci wàllum assainissement ci dëkk bi ngir di ci ut saafara. dafa mel ni li ci ëpp ci plan yi nga xam ne def nañ ko ak ci niseer yi nga xam ne am na ci wàllu yi nga xam ne mooy assainissement fi mu fi mu yegg ci dëkk bi bariwul ak dayawaayu dëkk bi léegi li ñu bëggoon ci loolu mooy suñu ko jotee moom la sëñ bi doon junj sànq dafa am kuréel goo xamante bi ne ni dañ koy ubbi bu ne mu nekk loo xamante ni à long terme la ñëpp képp koo xamante bi ne ni sa xam-xam dafa màcc ci wàllu assainissement Touba ca kanam dafa fas yéene dugal la foofa am na ci ñu bari ñu ci jot a am fi toll am na ci ñoo xamante bi ne sax jotoon nañ cee xalaat ba bind ci loola buñ ko defee te it loolu dañ ciy wax ni ñi ne moo xam ñi nekk ci biir réew mi la moo xam fu ñu mën a nekk ci àdduna ndax léegi xarala yi euh, def na ki ni mën nañoo nit mën naa nekk fu ne di liggéey ak ku ne. mboolem kilifa yi nga xam ne teewoon nañ jotaay bi nga xam ne moom la Touba ca kanam doon amal ngir lancer travaux assainissement bu Touba ñoom ñëpp rafetlu nañ jëfu Touba ca kanam am setu Mbacké moom Serigne Abdou di ñaax yenn service yi ngir ñu ñëw participer bu baax a baax ci Touba ca kanam ndax li ñuy gañe ci dëkk bi bëri na lool. kon nag ñuy soññ kuy taalibe kuy jullit ku bëgg lu baax nga jàppale leen li ñu def te xam ne ku ko def sànn wi dem dellu si rek la ci yow la del si waat nag ba ci day li mel ni orange ak wari ak yi niroog ñoom ñoom amee nañ Touba ca kanam duggal tey dañoo war a jëf yéen di ko waaj kanam mhm. ndax ñi ciy dugal seen addiya dañuy fay te ñoom ñooy bénéfice jaar gi mi jaar ci ñoom tey dañ ciy am tiyaaba dañ ciy am tiyaaba am ci ci yóbbu addiye ki ko jot li ak ki ko joxe ñoo yem képp sëriñ Bassirou Mbacke Abdoul Khadre moo teewaloon sëriñ Mountakha Mbacke Bachir ci jotaay bile moom it santaat bu baax taxawaayu tuuba ca kanam ak taalibe yi nga xam ne ñu ngi ciy jëf rawatina ñi nga xam ne ba Touba ca kanam dooree ba léegi weeru yàlla sàkk ñu ngi ciy versé seeni mille francs ak dërëm ak ki joxe nga ci poche ba la mooyam ci moom Serigne Saliou Mbacké daal wax ne addiya moo ko doon mën na ko ci dara ko joxe ca lañ kon ña tàmbaloon di joxe ñetti mil ba liggéey bi ak si kon la seen xetal bu baax a baax te ngeen góorgóorlu ci baax a baax te xam ne jëm naa ne Serigne Touba na ko ndax li tax mu ko di yàqoon yenn daayira yëpp. yàlla musal ci kon nag yàlla nañ ci gën a musal te suñ Tuubaa dimbale leen gasandu leen ba fa ngeen bëgg jëm ci liggéey suñ Tuubaa bi ci dëkk bii nga xam ne suñ Tuubaa dëkk bi rek ko ñoroon ba mu mas a nekk ci géej gi di ngeen Cheikh Abdou wax na ko ci waxtaanu 88 bi la mu wax mooy di ak yàlla diggam ak Rasulullah diggam ak Alxuraan ba ko ñeenteel mooy dëkk bi mosuñu gis leneen lu ko ñor pour dëkk bi kon nag képp koo xam ne jur nga ci dëkk yi ci ca kanam door na liggéeyub assainissement bu Touba bi ginnaaw boo xam ne mboolem jumtukaay yi ñu doon xaar agsi na ci bërëb bi. liggéey bi nag fas ne wéy seenu bëgg-bëgg moo di bala ñuy àgg màggal Tuuba mboole mbedd yi nga xam ne dañoo nekk ci dëkk bi waaye liggéey bi du yem rek ci màggal gi ndax seenu objectif moom moo di trouver solution ci assainissement bu Tuuba